waaw bon maintenant ce n'est pas ce n'est pas exactement que ni yeewi tas na taxawu la ñu dàq ci yeewi mais toute l'entité yi. Euh, <laughs> d'accord foofu mu leer foofu mu leer. alors yeewi euh, taxaw dàq nañ ko. Pastef n'existe plus. non rek Pastef a été dissolu. doucement donc il reste qui dans yeewi. non euh, yeewi. <laughs> Uh-huh. taxawu lañ ci génne. mais l'entité bi li desoon parce que la conférence des leaders ce n'était pas seulement taxawu. le Pastef de dedans même si le contenant Pastef toj nañ ko mais le contenu Pastef est dedans c'est-à-dire l'esprit voilà il y a le pur qui est dedans il y les autres partis Habib Sy Déthié Fall ainsi de suite donc kon ñoom ñoo ci génnee taxaw mais loolu noonu tamit foog ñu interroger wu ci euh, problème boobu ngay wax entre taxaw non on n'en est pas encore là ah. benn entité moo génn rek nga ne tas na Ah, benn entité taxawul. Ah, non non sa gëm-gëm la. sa gëm-gëm dañ la koy nangul. waaw dafa nag si de manière factuelle. mën nañ ma génneel beneen entité bu ne la bokkatul yeewu nañ ma ko jox. de manière factuelle je parle factuelle. Mm-hmm. benn entité bu dul taxaw. Mm-hmm. bu génn ci yeewi askan wi nañ ma ko wax maa ngi leen di dégg. moment bi et je mets au le monde. moment bi d' accord. kon bu ma nee d' yow mm-hmm. da nga naan d' après parce que bu amee kenn ku am un élément factuel pour me dire que entité yeewi askan am na leneen lu fa génn lu dul. taxaw nañ ma ko wax. parce que certains analystes ñeneen d'autres observateurs moment bi pour ñoom yi tas na déjà ku ci mel ne maître Moussa Diop bien avant le départ de taxaw euh, fii la toogoon fi nga fi nga toog ni on lui a on de Yewwi mu ne Yewwi benn en fait benn vœu la rek mais mais mais tas na yàgg na. regardons l'histoire de maître Moussa ak Yewwi. d'accord bu mu. ne non en fait c'est pour vous citer un exemple rek. bokkul Yewwi. oui moom il a claqué la porte depuis le début. Oui. de léegi dama wax loolu ngeen di ree naan ma selon yow ma ne leen léegi selon des faits tegal leen ma keneen ku génn Yewwi ko du taxaw. d'accord mënul nekk et je mets au défi tout le monde mënut a nekk je suis factuel. maintenant lan moo waral loolu noonu au début entre Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz. Ousmane Sonko dafa génn def benn communication disant que le président Macky Sall mi ngi waaj a ut ku ko corser la peine dans l'affaire Mame Mbaye Niang en appel benn responsable Yewwi la ko wax on se rappelle de ça Ousmane Sonko l'orientation de sa communication c'était de dire que ni président Macky Sall passant par la justice mi ngi may jéem a xañ ma bokk nullement l'idée de d'attaquer le responsable de Yewwi en question subitement nga gis Ousmane euh, Barthélémy Dias génn. moom tamit am nu mu waxee. ci kaw Ousmane ko te man jàpp naa ne déclic boobu problème boobu noonu benn coup de fil li jënti woon na ko donc kon li ñu naan yeewi tas na en fait yeewi li li li beddee ko ci moom muy taxaw taxawu moom moo ci perte dans la mesure où benn challenge moo dese yeewi benn. challenge dañ ne woon nañ ànd euh, local nañ ànd législative présidentielle nag ku nekk demal sa bopp. Mm-hmm. ku gën a mieux placé ñu ñëw jàppale la. fi mu toll nii taxaw bu mieux placé duñ ko jàppale <laughs> kon li li li perte ci yeewi en fait entité boobu noonu dem di taxaw moom moo ci perte ban déggaguma Khalifa Sall dans ça toujours c'est Barthélemy Diaz et le euh, Pastef ñoom ñaar nag ñu ngi joxante des coups de part et d'autre eh boo xoolee recours bi nga xamante ne Pastef dugal na ko ci assemblée nationale c'est pour ralentir la candidature de Khalifa c'était évident. Mhm. parce que ni sur la fond euh, sur la forme ni sur le fond ça n'avait aucune chance d'aboutir mais oh, ils étaient dans des querelles euh, de doomu nday loolu moom moo ko waral donc Pastef joxe na coup taxaw aussi joxe na coup en éjectant Abass Fall donc kon ñoom ñoo nekk ci querelle politique loolu nag ñaari entité yu am solo la ci biir Abba Mbaye aussi wax na moom mi waxoon tamit ne li tax mu perte mairie Saint-Louis li Ousmane Sonko ñëwul la il faut le aussi